dañ ci ànd ak El Hadj Hassan Guèye la guerre des oppositions di tibbante tànk gi ci biir opposition bi ngir kii doon njiital boobee opposition la enquête xëye tey teg ci xëtam bu njëkk nag nataali Abdoulaye Wade Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ci yéenekaay bi mu njaay Cissé njiital ONG d ne débat bi ci mbiri chef de l'opposition benn teel na ba ca des lu dangereux la colonel Abdourahim Kébé moom ne ak lu ci mën di am daal opposition dëgg moom du toog rek na yàcc di xool nguur gi déroulé ko doxalee nam ko neexee ci le témoin boroomi xam-xam yi di professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger bu Ndar politologue yi di Mamadou Sy Albert ak Momar Diong di dànkaafu ci tas gu parti yenn yi mën a tas seen biir ndax xeeñtuy ngëneel ak i avantage yooyee ngëneel ak i koppar nag mën a doon dëgg sërëx gi ak waxi statut chef de l'opposition waral mu Ndiaye Cissé bi yoon ci la tribune ne danoo war a sax rey enjeu financier bi ci mbiri ndax nag fileeg mbiri koppar mu ngi lalu ci doxalin yi xaajaloo du ñàkk ca sax wax ja jotagul ndax ci dialogue politique bi leeral nanu ko ci ne loolee ne statut chef de l'opposition duñu ko doxalee élection yeneen yi ñëw la tribune jàppee mbaqusub Macky Sall boobee di chef de l'opposition ak budget bu lu ëpp ñaari milliards cadeau bu ñu posene wax ji nag lëj gu mu lëj waral les échos jàppee ko patate chaude ne waxtaan yi sax ñel ponk boobee ci dialogue politique bi dañ ko faf dàq ba ëllëg Sud Quotidien mel ni ku naan opposition boobee yéen toog leen foofu ndax dialogue ngaayo président Macky moom di dajale ca palais ba équipe di staffam ngir waajal élection mairie Le Soleil ne juróom-ñetti projet validé nanu ko ca ci valeur u ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñu waxtaane wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro coronavirus laas xëy ne ma ci ku ñàkk bakkanam Sénégal rax doole ñu ne cas communautaire yi seen ab jàpp ne yaakaar mun na am observateur moom la muy tiit mooy nit ñi gën a wàcce loxo yi ci boobéb xeex ndax ci gëstu yéenekaay bu groupe Futur Média seetlu gi ci marché bi mooy business ba wóoroon covid 19 bi daa wàññiku la muy tekki mooy nit ñi lañ daa fagarooy jëndi masque ki bu baax Ousmane Gueye njiital SNEPS ba tey observateur naan ci jamono yi nag du jamonoy négligence waaye jamono yokk parlu gi la ak moytu gi lu ko mooy virus bi dal di yokk moom ak tasaaroom ci biir penc mi docteur Gueye ne ña ngay wéyalaat nag liggéey bi ak askan wi ngir ak jógaat ak wàcce googee askan wenn ci loxo yi ci xeex bi du Sénégal rek ca nag mu ne lu normal la ndax ñi daa jóg ci njëlbeen di wax bëgg a feeñ ak a jëf danoo mujj xam ne yëf yi du xelu ci distance yu gàtt waaye ci jéego yu yàgg la maanaam du course de vitesse course de fond la ca nag mu ne ki gën a dékku mbir yi gën a muñ mooy yeggale course bi étudiants yi nag war a gën a defarwaat ci boobee course ak moytu gi ñeel coronavirus vox populi ne démb dellu nan ci daara ya fu ci mel ni université Cheikh Anta Diop Ndakaaru waaye nag yëf yi ab pëcc la woon waa Ndar ñoom ca Saanaar wan ginnaaw ubbite gi teg ca naan dañuy ngénte tubaab maanaam di lekk ci restaurant ci luñ dul fay dërëm di dem ñetti fan sax 72 heures lañ fas yéene def ñu ne lu ni mel le lu jëm ci tàmbali waatuk njàng ci daara yu kawe yi Sénégal gis ne faux départ da caa am fu ci mel ni Saint-Louis ak Bambey a xëye moom wàllu napp mi ak fayantoor gi mu gis diggante ministre Aliou Ndoye ak Sayer Seck la mu jur nag mooy fukki fukki boromi kër yu ne ci chômage technique ndax ñu ne ñàkk gu bato buñ daa daane seen doole ñàkk licence ngir liggéey ministre yi nag am na ci kenn ku taxaw dëkk président Sall lànk def déclaration patrimoine libération ni waxee xamuñu nag ñu ne kana waaye ci fanweer ak juróomi ministre fanweer ak ñeent ya dong ñoo dem ci OFNAC def lu ni mel OFNAC sax moo xamle lànku ministre boobee donte waxuñu tur wi yéenekaay bi nag di libération njortu ne bu moywul ay daan ko ca ambulum ngànt dégg lu ci mel ni wopp ak yeneen. Savon de Marseille Alphée seen